axlan wasaxlan nana lan la yéen a kaay xëy fekk leen ma ci 24 heures yéen a kaay moom mi xëy ci sénéra ak waa seen tv tëj gi nga xam ne tëj nañ ko seen télé bi ak seen rajo bi ubbil yéen a kaay bi yéen a kaay bi di ñu xamal nañu lu waral ñu tëj ko moom moo di Ahmed Aidara ci boppam liggéey bi muy continuer di liggéey foofee nga xam ne moom moo di ci groupe des médias gannaaw ba ñu ko defee meeru géeje waaye loole lañu ñu lànk moo tax de joxoon nañ ko avertissement bu yàgg de pour mu bàyyi revue de presse yi nga xam ne da koy amal ci kër googule Ahmed Aidara nag nag démb bi mu defee li nga xam ne moom moo di revue de presse ci groupe des médias gars yi dagg seen signal yi Bougane Gueye Dany ci biir yéen kaay bi nee na Ahmed Aïdara moom bu ko neexoon dàq ko de ndax ñoom ñaar ñi ngi ci géew politique gi te bokkuñu jëmuwaay waaye da koo bàyyi mu jël yoonam moom tamit mu jaar yoonam kon nag njiit réew mi Macky Sall wurul dàqulu ki nga xam ne moom moo di Ahmed Aïdara démb ci janoog gi mu doon janoog yenn ci ay tastatu xibaar moom Bougane Gueye Dany wax naag zone su Pikine de nee na leen ngeen fipp jéem a régler problème bi seen bopp ndax njiit réew mi Macky Sall ne ginnaaw amul lenn loo xam ne si def na ko lu leen di jëriñ yéen jeunesse bi diir bi nee na kaay nee na waa Sénégal mujjee naa coupé signalu Sen TV ak Zik FM ndax Ahmed Aïdara ci boppam la ñuy bañ mu liggéeyee foofu le yéen kaay bi biral daan na décision bi nga xam ne waa Sénégal jël na ko nag ci groupe des médias amul fenn foo xam ne si teg nañ ko fa maanaam dañoo def lu leen neex rek ñetti fan yoo xam ne si groupe des médias si lay nekk yéen kaay bi daan na pourtant RTS ay journalistes ñoom ñoo fa nekk de te lu neex njiit réew mi Macky Sall taxawaalu dong la ñuy def kon lan moo tax ci boppam te ñu RTS ndax RTS ci boppam amul benn tëdde njaaxaanaay bu mu wane maanaam par parloo dëgg la def ndax état la fi nekk l'exclusif yéen a kaay tëll bind ci loolee ba xolam sedd daan na waa Sénégal def nañ lu leen neex nga yow daan yooye nga xam ne teg nañ ko seen TV mën na la du moom kese de leeral TV ci boppam ca la bokk aha maa la ko wax de ndax diglu gi nga xam ne diglu woon nañ ko aji Sarr looloo tax leeral TV dam jee ci boppam alamaan nañ ko lu tolloog ci fukki million lan la ko wax de fukki million ci boppam lañ ko alamaan ndax nag diglu gi nga xam ne diglu woon nañ ko aji saar yéenekaay bi biral daan jamono ji aji saar di dem di wax foofee nga xam ne moom moo di sa leeral tv mboolem télé yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñëpp a ko wonoon ginnaaw a jël risque dalal ki nga xam ne moo di aji saar ndax bañ ku la gi nga xam ne teg nañ ko tey ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa leeral tv nga mucc ca l'observateur yéenekaay tëll bind ci wàllum politique ba xolam sedd nee na ëttug politique gi léegi nag yombatul de aha maa la ko wax Karim Meïssa Wade ak ki nga xam ne moom moo di njiit réew mi Macky Sall ñoom ñaar neexoon nañ lool léegi seen diggante yéen kaay bi dikk ci bi nga xam ne moom la njiit réew mi Macky Sall amee ma ngay waaj a sonal ku jóg politique gi de ndax Karim Meïssa Wade ci boppam bu ñu sàgganee dina dem fekk ji njiit réew mi Sall daanaka nag benn tànkam moom ma nga APR ba pare yéen kaay bi biral daan na njiit réew mi Macky Sall ñor xomb la def ci wàllum politique lépp lu mu bëgg a def dina ko def te nag bu ko defee tamit du mujj fenn Karim sa Wade fi mu bëgg a jaar ak moom foofu la jaar ak Idrissa Seck ak ñeneen ak ñeneen ak PDS ñooy parti politique yi nga xam ne ñoo gën a yàgg ci biir réewum senegal Walfadjri fajir kaay moo ci xëy bind ubbil yéene kaay bi yéene kaay bi di ñu xamal nañu ñooñee yàgg nañ fi de waaye jamono ji moom mënuñoo naaw de aha seeni laaf ci boppam moo damm depuis nag ba ñu perte nguur gi ba léegi amuñu benn taxawaay bu baax ci géew politique gi Les Échos yéene kaay tëll dikk si coowal Miss Sénégal bi nga xam ne moom lañ fi doon ruumandaat yéene kaay bi di ñu xamal nañu ndekete yow Fatima Jonn musul porte plainte Amina Badiane lan maa la ko wax de ndekete nekkoon waaye musu koo dóor ab plainte yéene kaay bi di ñu xamal nañu kon nag Amina moom à tout moment mën na génn ci coow loolee ba set ndax ki nga xam ne moom moo di Fatima John musu koo plainte yaa Cheikhou Baba Lamine Diassé mën na la réew mi jaxasoo na de boo jugee si kaa bii dal ci beneen kaa coowal Miss Sénégal bi moom saa yu ñu xëyee mën nañ cee dégg lu bees ñi ci waxul roon rek ñoo nekk si jàmm jamono ji lii kenn attunu ko ba